Ababacar Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. waaw maa ngi lay fay. ngay secrétaire général bu groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance euh, GRADEC euh, tey euh, ñuy door li nga xam ne mooy révision. liste yi démarrage bi le 31 juillet la euh, ba le 14 septembre mu doon diir bu gàtt ndax jàpp nga ne ci diir googule dinañ ci mën a euh, def lépp lu war ngir ñëpp mën cee gis seen bopp. waaw maa ngi lay gërëm di la sant question bi nga posé dafa am dafa am solo parce que xam nga dafa am ñaari façon révision dafa am lu ñuy wax révision ordinaire kooku moom chaque année dañ koy def diggante le premier juillet euh, février ba le 31 juillet diggante ñaari at lañ ko gëj a def. ci loi bi tamit dafa wax ne mën nañu def révision exceptionnelle bu fekkee dañu war a euh, dem ci ay élections générales mm-hmm. foofu la ñu toll comme defuñu koon depuis ñaari at ñu ne donc ren dañuy ubbi période de révision exceptionnelle mm-hmm. mais diggante boobu léegi bu ñu xaymaa li nga xam ne moom moo war a bindu ci ndaw yi nga xam ne ñu ngi war a am fukki at ak juróom-ñett ci bisu élection bi daanaka mën nañ ko xayma ci presque lu tolloog million yu nit donc boo xoolee délai bi nga xam ne tey euh, proposé nañ ko wax nañ ko ci décret bi mooy maanaam euh, le 31 juillet. ba presque le quatorze la ñu wax mais daanaka mbindu mi demul ba le quatorze mbindu mi le lay jeex. diggante le huit ba le quatorze nag maanaam dafay nekk euh, lu ñuy wax contentieux des inscriptions ñi nga xam ne dañu ñëw di inscrire ñu rejeté seen inscription. Mhm. ñooñu mën nañu dem clamé maanaam saisir président tribunal d'instance pour def recours pour ñu mën leen delluwaat ci liste yi. Mhm. donc boo seetee ba seet daf fi day nekk presque fanweeri fan ak ak semaine. Mhm. loolu nag boo xoolee ci potentiel bi nga xam ne ñoo war a bindu lu gàtt la. te ñooñu lay gën a lor parce que mbindu bi dafa concerné ñi nga xam ne masuñoo am euh, maanaam masuñoo nekk ci ci liste électorale yi mm-hmm. masuñoo voté ak ñi nga xam ne tamit maanaam amoon nañu seen carte électeur mais dañu bëgg def modification d' adresse électorale maanaam gox bii lañ doon voté léegi toxu nañu dañu bëgg dem ci beneen gox voté fa wala ci département bi la ñu nekkoon léegi dañu bëgg dem ci beneen département di fa voté ñooñu mën nañu def ay modification d' adresse électorale mm-hmm. wala koo xam ne par exemple takk der nga woon moo xam soldat nga wala alkaati nga euh, amoon donc euh, nga war a def changement de statut léegi nga retraité ñëw à la vie civile war nga def changement de statut mm-hmm. donc yooyu la ñu war a régler mais li mbir ñi mbir mi gën a nar gën a laal mooy ndaw yi nga xam ne maanaam masuñu bindu nga xam ne donc ñooñu li ñu leen laaj mooy eh, li décret bi wax mooy mbindu bi maanaam sa carte d'identité ngay indi. mais boo amul carte xam nga il faut que da nga dem wuti ko da ngay dem ci commissariat de police wala nga dem ci brigade de gendarmerie mhm. mais boo defee demande yow xam nga coono yi ñuy daj da ngay teel a yeewu dem rang bu fekkee ne indiñ ay matukaay maanaam sa carte waxtu bi ngay dem di ko déposer ak ba muy génn mën na fekk commission yi seen liggéey jeex. Mhm. loolu déjà problème la de sorte que bu fekkee loolu dafa am dina am ay junni junni ndaw yoo xam ne vraiment donc du ñu mën a effectivement bokk ci ci ci liste électorale yi. ndax li ni mel mën nañ ko corriger. Euh, wala waxtaan wala mbir yi jéggi na dayoo ba pare. waa mën nañ ko corriger loolu dama jàpp ne ci waxtaan bi ñu doon waxtaan ci dialogue politique bi loolu déjà comme jàppoon nañ ne dañuy dem ci révision exceptionnelle loolu waroon nañ ko waxtaan pour déjà indi ci solution. mais euh, yëf yi weesul je pense que bu fekkee ne xëy na nit ñi parti politique société civile bon saisir nañu nguur gi mën nañu trouver ay solution ima léegi ñu wax ne képp koo xam ne da nga dem ci brigade de gendarmerie wala commissariat nga bindu ñu jox la récépissé récépissé boobu mën la may immédiatement nga ñëw nga bindu ci liste électorale yi wala la ñu defoon ci jamono bi ñuy def refonte totale ci 2006. Mhm. ñu def li ñuy wax le principe de la double opération maanaam commission bu nekk. Mhm. dafay am ñaari opérateur kii dafay yore mbiru euh, bindu bi ci carte d'identité kii yore électeur mhm. yow boo ñëwee fii ba ñu bind la ba noppi nga dem fa des wala benn opérateur bi def yëpp bu la bindee ci carte d'identité yi ba noppi mu bind la après bu ko defee xam nga ba ñu demee bu ñuy def traitement bi bu fekkee am na ay rëq-rëq yoo xam ne war na ci am ñu corriger ko wala bu fekkee ne yow par exemple waroo am carte d'identité et cetera nañ ko rejeter mais il faut que ñu permettre nit ñi vraiment ñu mën a bindu parce que loolu bu ñu ko naree def dina indi gàllankoor bu bari ci ci ci ci révision bi. ci tërin bi tamit euh, nee nañu euh, commission yi dañ leen di wàññi daanaka boo moyul benn lay doon ci commune gu nekk euh, li ni mel tamit mbaa du am lu mu gàllankoor. waaw naka jekk bu ñu daan def révision sax dañ daan def commission bu nekk euh, commune bu nekk am lu mu néew néew benn commission. je crois que loolu la déc lool la décret bi wax. waaw donc boo seetee dañu jàpp ne tey ci euh, cinq cent et quelques collectivités yi nga xam ne moom moo nekk commune yi fu nekk dina am commission mais xam nga commune yi yamuñu da ngay yoo xam ne par exemple dañuy dañuy yaatu boo demee tey fu ci mel ni commune bu mel ni Parcelles Assainies wala nga dem mel ni Grand wala fu mel ni Médina wala bon donc. yemuñu taille démographique mhm. donc tey fu mel ni parcelle boo fa tegee benn commission loolu dina indi problème surtout jamono bi ñu nekk nga xam ne ak jamono mbas mi mhm. nit ñi day fay dem rang problème lay indi il faut que nga yenn yenn communes yi nga mën fa def ñaar ba ñetti commission bu ko defee nit ñi dina ñu mën a am possibilité euh, ñii dem fii ñii dem fële ñii dem fële donc loolu yaakaar naa ne il faut que ñu jëm ko euh, saafaral maanaam bañ a limiter rek ci benn euh, commission par par commune Mhm. tey ñu doon wax euh, vote euh, suffrage direct euh, mu doon li nga xam ne processus bi tàmbali nañ ko jamono ji danaan kak ndax njiitu réew mee ci am dogal jamono ji moom la ñëpp di déglu ndax foogu leen ne tànkam lu gi dinañu mënee ñu jëlaat format gi fi nekkoon. waaw c'est-à-dire loolu dafa nekk question boo xam ne loi bi daf ko réglé ba noppi xam nga acteurs yi bu ñu toogee waxtaan ci dialogue politique bi. Mhm. ñoom ñoo d'accord pour ñu changer mode d'élection maire yi. ki nga xam ne moom mooy jiite liste majoritaire mooy nekk maire. loolu ba ñu defee donc projet euh, code électoral bi nañ ko assemblée assemblée voté na ko. Mhm. Euh, gis nga opposition bi attaqué woon nañu def recours conseil constitutionnel ñu débouté leen donc président war na ko promulguer donc fu mu ne nii béy wéy na mbuus fu mu ne nii moom mode d'élection bi daanaka loolu c'est acté léegi maanaam ki nga xam ne moom mooy jiite liste majoritaire mooy nekk maire. Mhm. loolu nag bon euh, ñi muy indil jafe-jafe ci sama yaakaar mooy surtout mouvance présidentielle parce que gis nga gox yu bari. mu am ay ñaar ñett ba ñeenti candidat pour nekk di xëccoo naan yaay jiite liste mhm. te kooku bu président maanaam àttee mbir mi euh, ñu jël kenn tabb ko mu jiite liste ba ña ca des euh, dañuy am frustration mën nañu dem soit ñu def liste parallèle te gis nga déggoon nga président menacé woon nañu koy def mhm. euh, wala ñu ñu def vote sanction loolu yëpp mën na indi ay jafe-jafe donc surtout ci côté nguur gi daal ci lay gën a indi indi problème côté mouvance présidentielle. ñu wax ci pandémie bi jamono ji Sénégal euh, gis nga euh, croissance maanaam euh, courbe bi ni muy demee ñuy waajal ay élection donte teel na wax ci campagne waaye tey ji en tant que société civile ban ñaax ngay ñaax. Euh, homme politique yi. waaw ñaax bi ñu leen di ñaax mooy mooy loo xam ne ñëpp la concerné suñu bopp ak homme politique yi ak yëpp parce que am na ñoo xam ne société civile la ñu bokk aussi te dañu fas yéene aussi euh, maanaam euh, xëccoo jël yenn communes yi parce que mbiru élection locale moom élection citoyen yi la. Mm-hmm. waaw mais ñëpp muy acteur politique di société civile ku ci nekk war nga jël sa matukaay ci li ngay xam ne moom ngay maanaam dem di seeti nit ñi. ñu jël conscience ne euh, jamono bi dafa soppeeku dañu nekk tey ci jamono mbas mhm. te gis nga mbas mi surtout variant delta bi ñuy wax ni muy maanaam lawee ak li mu indi ci ay euh, milliers de contamination par jour ah, wala ay centaines de euh, de de de contamination ak ay dizaines de morts au quotidien mhm. donc loolu mën na tax ba nit ñi def ci prise de conscience képp koo xam ne yaa ngi maanaam def li ñuy wax campagne nga mën a privilégier li ñuy wax campagne de proximité maanaam xool à l'échelle donc du département wala la commune di dem di yoo xam nga maanaam électeurs yi xam nga ñu dëkk euh, ci gox bi nga dem di leen seeti mën na nekk ay contact di jël sa matukaay laal sa gel takk sa masque dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen nu mu tëdd donc sa programme wala ñu mën a def comme campagne euh, euh, élection locale nekkul campagne boo xam ne c'est c'est radio télévisé waaye nit ñu mën nañu utiliser support yu mel ni journaux yi ñu mën a par exemple benn journal benn gox invité benn candidat kooku ñu wax programme am wala nit ñi mën a dem donc ci rajo privé yi wax et cetera wala nit ñi def maanaam ay euh, euh, réunion publique d'information yu ndaw yoo xam ne par exemple da ngay cibler ay par quinze vingt personnes dajale leen foo xam ne espace bu yaatu nit ñi respecter distanciation physique bi nga ñëw wax leen li nga bëgg et cetera bon def ay flyers distribuer ko wax sa programme ak yu demee noonu. Mm-hmm. donc il faut que ñu trouver ay formule parce que suñu réew yi euh, wute naa quand réew tugal yu mag yi nga xam ne. boo demee ci dëkk yooyu am na li ñuy wax vote par correspondance. Mm-hmm. waaw mën mën ngaa toog sa kër par exemple mais fii il faut comme amuñu foofu maanaam il faut que nit ñi déplacé donc il faut que non seulement campagne bi na nga koy defee nga def ko ak intelligence ak xel. mais ci bésu élection bi tamit nit ñi fexe ba euh, ñu jël seen matukaay ba ba ñuy dem ci bureau de vote yi tamit di rang ñu ñu def respect distanciation physique diggante ñaari euh, nit ñuy rang mu am un ba deux mètres ci biir bureau de vote bi également di ngeen ni ñu koy aménager membre bureau yi ñu toog am espacement représentant parti également am distance seen diggante et cetera et cetera donc yooyu yëpp yaakaar naa ne bu ñu ko ci saytoo war nañ ci mën a indi ay matukaay d'autant plus que du guléet am na réew yoo xam ne fii ci ñu wër muy ci réew yu démocratie yu mag yi France def nañ fay élection mm-hmm. ci période bu mars euh, fii def nañ ko Guinée def nañ ko Côte d'Ivoire def nañ ko Bénin yooyu yëpp yaakaar naa ne buñ ko defee dans le respect des gestes barrières yaakaar naa ne war nañoo mën a def ay élections yoo xam ne nii xëy na vraiment du am benn problème. ndax jàpp nga ne Sénégal mën nañ lool. waaye nit ñi mën nañ ko l' rek nit ñi dañ leen di yar ci mbir mi parce que xam nga sénégalais ci jamono yi gis nga ñëpp dañu bàyyi woon seen loxo li ñuy wax relâchement. Mm-hmm. gis nga fan bi nga xam ne maanaam euh, euh, virus bi euh, sàllar ñi ku na <laughs> ma fi yi gën a yokku gis nga tey ñëpp ngi tiit ñëpp koo gis mu ñuy takk masque nit ñaa ngi daw di di vacciné wu ñu alors que ba ñu vaccin bu muy door a ko woon. Mm-hmm. et cetera. nit ñaa ngi dem ci centre de santé yi ku nekk di dem di consulter wu et cetera et cetera donc jàppaar yaakaar naa ne daal nit ñi ñu jël suffisamment seen responsabilité ak seen matukaay d' autant plus que bureau élection yi dafa yàgg bul fàtte ne élection yi bañ ko war a def yàgg na. Mhm. daanaka depuis presque mën naa wax ne deux mille dix neuf lañ ko waroon def ñu ngi tey ci deux mille vingt un daanaka ñetti at yoo xam ne mandat euh, conseil yi donc mi ngi law. donc n ñi yàkkamti nañu fi mu ne ñu dem ci élection yi ba a yi donc mais loolu yëpp bu ñu koy def dañ koy def vraiment ci kaw euh, tey kaw teggin ak ci jël suñu matukaay euh, par rapport a contexte sanitaire bi ñu nekk pour que vraiment lépp ñu mën ko def te du am benn loraange. Ababacar Fall ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw man maa lay remercier aussi.